bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulihi al amin wa ala alihi wa sahbih wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi ddin mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu barakallahu fiikum wa ahsanallahu ilaykum mbokk yi ñu ñëw si suñ jotaay bi nga xam ne moom moo tudd benn xadis ci ay minute yu gàtt tey nag xadis bi ñuy indi xadis anas la radiallahu anhu muy wax mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam tasaxaru fa inna fi suxuuri baraka muttafaqun alayh sang bi sallallahu alayhi di wax mu ne na ngeen di xëdd ndaxte xëdd dafa ànd ak barke ndaxte xëdd dafa ànd ak barke loolu soo ko xoolee ni nga ko gis ndaxte nit ki dafay lekk avant fajar waaye bi isnillah du sentir xiif lu dul heure timis wala boog su sentiree xiif xiif la boo xam ne mun naa ànd ak moom mun naa continuer ak moom loolu nekk loo xam ne xéewal la nekk loo xam ne barke la loolu kon da lay jàngal yow jaam bi bul nekk koo xam ne da ngay forcer sa bopp wala nga sonal sa bopp wala nga mbugal sa bopp diine ji ñëwul ngir nga mbugal sa bopp santuñu la koor ngir nga sonal sa bopp ngir nga teg sa bopp loo xam ne ay coono la déedéet waaye islaam dafa bëgg nga jaamu borom bi comme nu ko borom bi santaane mais nekkul yow comme ni ko yaakaaree wala ni nga ko foogee déedéet kon loolu nekk loo xam ne jar bàyyi xel la moo tax sang bi saasam dañul di soññee si li nga xam ne moom mooy xëdd ba sax gis nga moo ngi wax na ngeen xëdd ndaxte xëdd dafa ànd ak barke muy wax si beneen xadis mu ne na ngeen di yéexal xëdd na ngeen di yéexal xëdd maanaam bu leen teel a xëdd xëddal heure boo xam ne maanaam soriwul fajar loolu nekk loo xam ne itam euh, rot na ci xadis boo xam ne al tabarani na ko al albani weral na ko kon loolu jàngal la ne nit ki dangaa war Euh, sabablu sabab yi nga xam ne dinañ la dimbali ngir nga taxawee jaam yalla bi si anam bi nga xam ne noonu la ko borom bi subhanahu wa taala gërëmee noonu la noonu la ko borom bi subhanahu wa taala bëggee ndaxte bëgguñu nga nekk koo xam ne soo wooree dangay ngay rek da ngay tëdd rek doo def dara ndax sa coono ndax sa xiif te itam ci loolu dinañ profité leeral benn mbir mooy ne léeg-léeg di nga dégg ay ñoo xam ne dañuy wax ne maanaam si weeru koor dafa am heure boo xam ne su jotee dangaa war a arrêté lekk ak naan donte fajar jotagul donte fajar jotagul dangaa war a arrêté lekk ak naan soo la lu tax ñu ne loolu moom maanaam moom moo tudd al imsaak heure bi nga xam ne ci nga war a sa bopp si lekk ak naan fekk duñ si indi benn dëgër laay boo ne bu dëgër la maanaam doo doo gis fenn foo xam ne dañuy wax ne quran moom moo ko santaane wala sunna moom moo ko santaane waaye loolu xëy na seen déggin la ak seen gisin waaye nekkul loo xam ne lu dëgër la nit ki am nga droit di lekk ba fajar xar ba fajar xar xanaa kay masala nga ragal fajar xar ne te fekk yëgoo ko wala fajar xar na waaye ima eh, ilimaan bi bilaal bi moom mooy yéex a noddu wala mel noonu waaye à part loolu nit ki mun naa lekk fii ak fajar xaragul loolu nekk loo xam ne jar a bàyyi xel la itam maanaam amuñu droit di xañ nit ñi euh, seen chance ngir ñu am lu ñuy lekk wala ñu am lu ñuy naan ba kero fajar jot balaa ñu leen di aaye dara il faut ñu indi fi ñu ko teg ndax yàlla moom moo ko wax wala sang bi sa moom moo ko wax te dëgg-dëgg loolu dajewuma ak moom fenn foo xam ne dafay wane ne nit ki danga war a arrêté lekk avant fajar loolu moom gisee ma ko fenn du si quran du si sunna du si waxi borom xam-xam yi barakallahu fiikum ahsanallahu ilaykum assalaamu aleykum wa rahmatullahi